Farba Sarr musul perte benn élection kawal di normal Kaolack di gagné waaw nan nga mën a gisee ñu xëy un bon jour Diène ba di def loolu ñu dàq la dàq la dooleel ñeneen ñun on a tout compris xam nañ ki kañ dooleel xam nañ lam def bañ dooleel ko xam nañ fam jaar ci lobby bu nekk pali pale lobby boobu noonu nekkoon pare xam nañ lañ fa indi xam nañ lañ ko jox ñun xam nañ lépp on est au courant de tout waaw ah, dafa fekk ne bëgg yoon di wax di gêner président Macky Sall parce que on l'aime beaucoup am na yenn wax yoon boo ko waxee dañ koy gêner parce que on l'aime beaucoup xam nañ lu ñu ko indi ñu toog un bon jour ñu ko jël Farba Sarr tu n'es plus le coordonnateur coordonnateur bi sax gin na nangu nañ ko ci yow avec ñàkk kersa ba pare nga gagné élection yow ñëw nekkoon ministre ministre bu mag ak li ngay daj yëpp nga ñëw dàq ñu dàq la ñu bàyyi kaw la jaxasoo nu def kaw la noonu noonu leen def cees nu def cees noonu leen def euh, Tëngéej noonu leen def Dakar gi ah noonu leen def Matam noonu leen def Diourbel noonu leen def partout maanaam partout si région yëpp noonu def maanaam lu bi seen lu bi lañ téye ku say nit rek ku fa nekkoon xamoon président Macky Sall nekkoon ci président Macky ñu fexe ba pousse la ba dàq la te mun na am sa président Macky Sall du la dàq de nga lu wax loolu c'est très parce que Diène Diène Farba dàq nañ ko si ministère de l'urbanisme ah mais président xamal nañu ne moom dàq ko loolu nag c'est à voir Diène man toog naa président Macky Sall barki yoon ci yàlla ma damaa woor mu ne ko mu ne ko président mais Diène mi nekkoon coordonnateur yi Kaolack Saloum la région de Kaolack di ko gars yi mais pour lañ toog un bouche ñu dindi ko mun a dindi man nag je n'étais pas courant man musuma wax ne dindi Diène ci coordonnateur la région de Kaolack. kon kon gars yi nga xam ne kon lobby boobu am na doole kon président Macky Sall à certain moment xamatuloon sax fu nekk certain moment président Macky Sall xamatuloon fu mu nekk maanaam ñu ngi koy yàqal ñu ma ñu koy maa ngi si ñu koy ba tey li ñu koy yàqalee 2019 maa ngi ba tey kon président Macky Sall xamatuloon fu mu nekk parce que te en tant que un président de la république ñuy def lii sa kër te yow yëgoo ko xamee ko ñu dàq Diène Farba pousse Diène Farba te yëgoo ko c'est gravissime waa Diène ak ngoram Diène ak bëgg président Macky Sall sans bruit sans coow mu continuer son travail te xam na ne yàlla suñu borom du faral kuy tooñ te xam na yàlla du ko seetaan ma la genre du liggéey ñu jox Paul lim liggéey nag yàlla di ko fay ci xolam lim liggéey yàlla di ko ci xolam kaw la yëpp ànd ak moom waaye bañ jëlee defee seen lobby yëpp seen yëpp ba pare Kaolack nan la mujjee alal du gagné élection alal du gagné élection yëg-yëg mooy gagné élection élection proximité boobu proximité boo yëg-yëg soo amee fit da ngay jege nit ñi mais boo amul fit doo jege nit tu penses que l' argent peut tout acheter alors c'est archi faux am ñoo xam ne xaalis ji am ñoo xam ne ñu diin am ñoo xam ne bu léegi nii ñu jaay seen ngor alal mun na leen def la lu nekk ci àdduna mais am na ñoo xam ne duñ ko def parce que ay gor lañu tegal cent milliards mu la ma dama diiñ ka nekk loolu laay nekk tegal cent milliards wa ilaa ñu jaay la baadoo la lekkal la ko ba mu set na la faariwuma la ñaar yi moo fi nekk damay góor du ma ko laal wa sama alal la man te maa moom dama koy lekk ba mu set te du ma la gis nga élection après élection locale lu ñu demee meeting boo dem day fees nit ñi ñëw mais nit ñi ils étaient pas contents trahison bi dafa bëri woon nit ñi trahir nañ Mariama ñi nga xam ne ñoo bokk APR ñoo créé APR parti bi nga nga daaneel parti bi ak Kaolack euh, ñàkkal fayda parti bi teg ñoo xam ne franchement kenn xamu liggéey liggéeyuñ ñu daaneel leen yàlla du yàlla yàlla yàlla dëgg la ñu daanu ba xalamu loolu ci Kaolack la boo demoon tey feneen ak feneen noonu la demee et donc euh, ñu ñëw ba ci biir léegi ñoom ñoo waroon président Macky Sall war ko président war ko nag. yàqal ko ñëppam yàqal ko ses hommes de valeur yàqal ko les intellectuels xoolal gouvernement bu Moussa am xoolal gouvernement Mary Teuw Niane xoolal gouvernement ñoom Diène Farba Sarr ñoom Pape Abdoulaye Seck ñoom Eva Marie Coll Seck xoolal xoolal les intellectuels là réew mi di dox ñu ne ñu ne fast indi fi gouvernement boo xam gouvernement corona gouvernement bu gën a nul dans l'histoire ci Sénégal kenn xamul ku leen fal gouvernement bi ñëw toog yàq Sénégal benn duñu politique amuñu base politique lu leen fal lu bi la seen nit ñoo leen fal yaa ngi ñu naan fast track yàq Sénégal amuñu niveau affaire gëree lañ foog ne mooy affaire euh, politique di yàqante gën di saagante te jii di may tur ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñoom ñoo ko may tur parce que am yoo xam ne jaruloon may tur yaa ngi woon ci mengam ñoo ko may tur ñoo ko def lépp muy gouvernement bi ñoo ñëpp parce que ñoo ñëpp ñoo fexe ba président Macky Sall ñàkk ay nitam ñu entouré ko léegi Soda ñooñu ñoo ñëwaat tey ñoo ñooñu waruñ ko tey ba yàqal président Macky ñoom rek ñoo ñëwaat tey ñoo ko puus ñoom rek tey ñoo ñoo nekkaat si ñoo ko xarab ñoo ko xas demal pale kalima yi ngeen ne pale moo gën a wéet daju liir demal présidence demal léegi présidence moo gën a wéet daju liir président Macky Sall maanaam <laughs> maanaam nit ñi maanaam maanaam gars yu mu àndaloon boo boo dem présidence da xool les bureaux là nga gis conseil technique gis nangam gis naa si koo xam ne président Macky Sall daf koo fal def ko lu rëy téye na gis naa ko tey mu téye micro di yegg lu mel ni Macky Sall ne ko ne ko ñun dañoo ànd yow ci dëgg waaw boo ñu deful xaw ma nanga nangam dañuy dem bala te gis naa président Macky Sall nommé ko man dugg naa président gis turam ci bureau yi waaw waaw waaw Macky Sall bu defee gars yi même bu defee erreur ñun kenn nanguwul président Macky Sall jalgati kenn nanguwul président Macky Sall jalgati waaw waaw waaye gars yi waaw war ngaa rus yow taxaw ci tere war ngaa rus waaw gars yi ñàkk kersa baaxul àdduna noonu ba ngay mar naan ba ngay mar naan waaw waaw ko ba ngay ñàkk fàttali ko ba kenn xamuloo moom moo la tax ñi nga xam la moom moo tax tey ni nga nekkee noo mu demee rek kii moo tax gannaaw yàlla yàlla fii la jaar président Macky Sall moo la tette moo la jox poste de responsabilité moo nga tiim ko tey di ko wax di ko tutoyer di ko joxoñ ñun tey man ak sama leader ñoo gën a néew li am ci nguur Macky Sall tey laa la ñu wax dëgg te tey jii lañ ko gën a supporter tey lañ ko gën a ñaanal yàlla man ak Diène Farba li mu waroon am ci Macky Sall li mu am nii il méritait plus qu'on dise la vérité Diène Farba li mu am nii il maanaam poste premier ministre yi ñuy fale ministre finance yi ñuy fale lépp lu ñuy fale Diène Farba lañ ko waroon fal intellectuellement c'est le plus bon il est il est trop loyal il a la base loo ko ëppale mais xeex rek jën daal xam naa ne bu bu toogee ñun ñun duñ nekk à l'aise parce que c'est un intellectuel te day wax dëgg buggul njuuj njaaj soxlawul sàcc soxlawul dara kii arrangé wuñu nañ ko pousse ba pare président am ma am malchance enturé ah, soo gisee ñu ko entouré un président de la république nit di ko entouré naan man ak yow bañ demee sàcc fenn ba ñu mayee xaalis mais loolu c'est gravissime ba ñu may xaalis soo waxul dinaa wax mais koo xam ne di weer jaamu yàlla yi man satara musliman satara wala yawmal qiyaama jaamu yàlla kenn du ko weer man du ma politique noonu du ma ne man opposant la euh, euh, euh, kii opposant la rek lu ma neex laa koy wax ma opposant bi nag ko neexee wax mu ko neex waaye man du ma politique noonu man du ma wax lu ñaaw du ma wax lu salte du ma wax lu xaraam du ma la xas mais damay teg damay teg samay bagage ba ñëpp gis ko bëgg ma par force noonu laay politiquer boo bëggee jàpp président Macky Sall da ngay teg say bagages teg ay action action et réaction gars yi bëgg na par force mais doo politique di weeraate di saaga di nangam man ak yow man ak yow bañ demee ba ñu mayee nga nga ne yow yaa gën a jege Macky bañ demee fee ba ñu joxee man ak yow xam nga bu baax ba nga ñëwee pare maa la jaarale ci caméra yi man ak loolu mooy entourage président Macky Sall c'est ça mais nii la mën a mujjee te ñoo ñëpp tey kenn demtu la moom de non non non bàyyi leen Macky Sall non non fini xam nañ ne mag Sall pare na xam nañ ne Macky Sall la deux bi après c'est fini amatul ci moom ba dootoo dégg ci Sall ngaari lam toor buur génne xaw ma nag dootoo ko dégg c'est fini dootoo dégg Marème Faye Sall waaw waaw naa nga ak man alxuraan de eh, dootoo ko dégg c'est fini waaye di ko dégg suñu de di ko dégg si Diène Farba Sarr tey la jën far ba gën koo bëgg tey la far Farba gën koo nawloo tey la Diène Farba gën koo ñaanal yàlla erreur yu ñu ko loolu yëpp président Macky Sall gars yi sama benn maam dafa wax dama ñu baal ma ci kàddu yi fenkat bu nekk sa biir yàgg sa biir mu ne doo ko dàq waaye fexeel ba bu mu la xam lu la wax ab fenkat bu dee da am mbooloo fenkat nekk ci ñoo xam ne ñëpp fenkat la doo ko dàq waaye fexeel ba bu mu la xamal dara ba di la mu ne ab sàcckat sàcckat nga xam ne ñëpp am nañu ne sàcc la mi ngi sa mbooloo mu ne bul ko dàq waaye na nga fexe da nga denc sa yëf ba mu la sàcc li mu bëgg wax foofu mooy li mu bëgg wax foofu amee ay punkal mais est xam ne c'est une grave erreur président Macky Sall ñàkk Mimi Touré ak ah, ku mën a def loo ku ko mën a def loo c'est une grave erreur président Macky Sall ñàkk Mimi Touré ci wetam Mimi Touré Euh, euh, influence am Mimi Touré ak mën a waxam macha allah c' est une battante c' est nekk sa parti yow di la jàppale yow mais lu mu mën a demee rek ñu yokk ñu tey jii su ko neexee mer mais Mimi Mimi Touré a a été humilié nañu waxoon dëgg nit doo ko faral da nga ko faral ci dëgg Mimi jigéen la yow ba ngay jël góor yaa ngi fi woon. ba nga naan ministre bu ñëw defal la euh, euh, tour di Sénégal góor yaa ngi fi woon ba nga naan ministre mu defal la nangam euh, maanaam ñëpp a fi woon nga ba ñëpp wóolu woo leen nga wóolu ministre mu def tour du Sénégal nga jëkku leen ko di nga xaar ba mu dugg ba biir prise assemblée nationale mais nga ne ko la ma la waxoon nekkatoo ko te mun naa wat ci alxuraan loolu di Idi Macky indi indil kaamil ma wat de loolu di jógewul ci Macky Sall man xam naa président Macky Sall président Macky Sall barke alxuraan Sénégal bu ñu ko xamoon mi ngi dem maa ngi jooy boo tiimee Macky ngay xam président Macky il est bon il est gentil il est généreux il a un cœur il est spontané loolu du idée président Macky Sall dañ dugal mu ñëw ba toog ba assemblée nga humilier ko dàq ko mais xanaa Mimi Touré moom du nit waru mer day muñ ah mais pourquoi muñ <laughs> day mer. bu ko neexee tey ngeen génne Mimi moo nekkoon ci président Macky Sall tey mu génn xar xaramul dafa mer dañ ko humilier mu génn mer Diène Farba Sall lañ ko def mu na ko muñ mu nit ñi degré yi bokkuñu Diène Farba Sall mais dafa muñ mais mais Mimi ne dem mënuma muñ damay dem sama yoon te damay wax Mimi Touré bokk na si tey coono guñ am ñu ñu ko teg bokk na ci parti Pastef dañ ko commencé considérer parce que sur le niveau international Mimi Touré macha allah dafa am influence intellectuellement elle est bien elle parle bien léegi ñoom dañ ko commencé considérer beaucoup de si lu ñuy sonal ñun nan ngay toog toog di ñàkk ay fexe ba di ñàkk franchement maanaam euh, ñi nga xam sa ponkal yi nga amoon ay ñoom Aly Ngouille Ndiaye ay ñoom Diène Farba Sarr ñëw ñëpp ku nekk découragé ba toog waaw yéen a yàqal Macky Sall waay boobu xam ngeen bu baax li ma la ak ko ko jiite yaa ngi dégg ñuy jigéen ñuy góor yéen ñi ko jiite am doole pare xam ngeen ma yéen a yàqal Macky Sall yéen a yàqal président Macky Sall ñëpp découragé après toog parce que dañu ñii ñi ay góor lañu ñëpp découragé toog couragé le bras parce que ñu sonn mënoo liggéey cent ans liggéey di créer sa base am nekk intellectuel dem conseil des ministres créer babar ñu toog si yàgg data bi yëpp ñu jël léegi beneen groupe la maanaam du ne yëg dara boo ñëw Kaolack jën forba du ko yëg boo ñëw Tamba ko fa nekkoon njëkk du ko yëg ñu dàqale nii comme ça nii nii am amul problème nga bëgg ñu insister continuer di sonn loolu nag am nañu ko mën am nañu ko mënul kon c'est une grave erreur ñu bàyyi ak ku digga ñu bàyyi ba ñàkk ñu turee c'est une grave erreur ak ñu mel ni ñu Touré fekk na looloo solo président Macky Sall daf ko sonal lépp loolu yëpp nag lu ko war a mooy entourage bu bon entourage bi nga xam ne chaque jour ko jëf ñu ngi koy digal lu bon Macky Sall Macky Sall Macky Sall était mal entouré nañu waxoon dëgg rek te yàlla tax mais soo xoolee ci makk Sall rek c'est président mais il était mal entouré ñu ko ñu ko dugal lépp ci affaire ñëw ñëw bon te ñooñu am nañ àq Macky Sall am nañ àq ñun te xam nañ leen de xam nañ leen de yéen a nekk Kaolack seen lobby boobu seen chef yi ñoo nekk présidence. waaye yéen a ngi Kaolack yéen a ngi Tamba yéen a ngi partout ñu da ngay gore li ma wax foofu mooy ma ñëw ci président Amadou Ba président Amadou Ba gis naa ay nit di la bugg dugal ci benn guttu bi nga xam ne boo ci duggee non seulement yéen a mën ko waaye élection dina métti trop ci yow président Amadou c'est un message très président Amadou Ba maa ngi lay lancer un message très for am na ñi nga xam ne ñoo anti ñu ngi woon ci entourage président Macky Sall mut naa waxte lu la Macky Sall defal yow doo leen ko defal defal la góoram ko Macky Sall defal na leen teraanga bu ne président Amadou Ba xoolal ci loolu bañ ko bëggee trahir dañ ko trahir faaletuñ ko waxtu nag moom gis naa leen ñoom ñëpp nag ñu mel ni weñ ñu ngi la dar na dar maa ko dara ñun ba ci xare ba ñu ngi la ñàpp dara la ñoom ñëpp gëmuñu dala ba ci géwél nga xam ne bu njëkk ba géwél dana mel ni alaaj Mansour Mbaye di lancer message bu baax di jubale ba ci géwél yi nga xam ne président Macky Sall lañ dem wax tey bàyyi nañ Macky sàll di ko ñàkkal xorom di créer ay différence ba ci ay woykat ay chanteur woykat yi nga xam ne président Macky Sall dafa ne lu ne ci àdduna mais niñ bàyyi Macky Sall c'est trop vilain dañu toog rek bàyyi Macky Sall ci anam yu ñaaw ak wax ñaaw te pourtant ba nekk ci biir te président Macky Sall dafa leen lu ne te alalu réew mi la lu ne leen président defal ma yow aadu ñoom ñëpp nag ñu si des ñu bëri ñu ngi la ñàpp ñii ñu ne la ñàpp kaa yii la am na ñoo xam ne il faut ñu ne la ñàpp ndax liñ fi def boo gañewul làmbaay ñaaw am na ñoo xam ne ñu ngi na Amadou Ba ñàpp pour mu gañe am na ñoo xam ne parce que lu tax ñu ne la ñàpp boo gañewul làmbaay ñaaw am na ñoo xam ne ñu ne la ñàpp mooy ñoom xamuñu coono xam ñu boo opposé ñoom fu tooñu takk ñoom daal suukar lañu xam bu neex saf suukar fu fu suukar ci nekkul dem nañ seen yoon duñu ay gor nit yu intérêt lañu ay nit ñu bon lañu ci jër lay nekk ay baadoor lañ intérêt rek sama intérêt bu taxee ci laa nekk sama intérêt bu ci nekkul nekkatuma ci yaa ngi dégg suur naa bàyyi bàyyi naa la suur naa la amatoo dara bi maa ngi ci fu tooy ñoo moo tax ñu ne ñàpp am na ñu ne ñàpp am la ñàpp parce que yow lañ yaakaar waaye dama ne ñu ñàpp yépp laa ni Amadou bu la kenn dugal ci APR ak Amadou Ba Amadou monsieur le président de la république Amadou Ba bu la kenn dugal ci APR ak Amadou Ba bu la kenn dugal ci wax dëgg yàlla waa kër Macky Sall ak waa kër Amadou bu ñu dugal ci loolu président yow yaa soxla de président élection oto yu rafet du ko gagné président élection ay woy yu dul ñu fay woykat président Amadou Ba waa waa nangam nangam yéyee du ko gagné de <laughs> du ko gagné de mun nañ fecc nag bu am na ñoo xam ne Sénégal dafa bëri stress mu ñi fu mu dégg mbalax dem mun nga feesal stade bu ne mun nga feesal lu ne barke alxuraan te doo gañe président maa ngi lay conseillé soo déggee sama conseil xayrun boo déglu sama conseil yow yaa moom sa bopp xayrun di ma di sama xarit sama rak sama jeune frère Ousmane Nawel waxoon na ma ko président toogal autour du table bul seexlu kenn bul xeet kenn président ci région yëpp oo oh, ñi fa am xarañ président maam Cheikh Ibrahima Fall ne na dinañ kañ jàmbaar yi nax yambar yi président munoo fekk ci benn région nga fekk fa benn boy bu fa am doole munoo fekk dem ci région fekk ku moom mbooloo mi ngay seeti des hommes politiques classiques là les non da ngay parce que am na dañoo ful la nit yëg la ñu ñu soxla ñu xaalis le président Amadou Ba bien vrai ne dafa am luy doxal élection mais du élection du xaalis moo moo ërtal nit ñi président Amadou Ba dama bëgg nga wàcc nga yëg nit ñi ñëpp yow lañu àndal ndax Macky Sall moo ñu ko joxoon ñun yow lañu àndal mais il faut nga wàcc oo ñëpp président buy seexlu oo kenn il faut appeler tout le moon bu tout le monde buy seexlu kenn oo oh, les leaders ñu toog ngeen waxtaan ngeen ne man Amadou Ba yéen laa am. ñoo la ñu liggéey mais na nga bëggee nit ñi tëb rek dem na ñu ngi de ñu ngi dem ñu ngi dem euh, euh, dem dem campagne ci nan. te oo xamoo leen sax oo leen nemmeeku leen ci nan ñu ñu a campagne ak bu ñu demee bu ñu la wax looy wax. sur quelle base. sur quelle base bu looy wax Amadou Ba lan la ñu wax ak ban programme la ñu wax et affaire bi yàggatul c'est dans quelques jours on n'a plus le temps mais kon dégg naa yaa ngi waaj dem Kaolack yaa dégg naa laa wax dégg naa parce que démb lañu ma naan yaa ngi waaj dem Kaolack. amul barki yontu yàlla Muhammad billahi lazi laa ilaaha huwa Kaolack yàllaa ko def bépp leader bu fi dugg ku dul Ousmane Nawel wala Diène Farba xale yu ndaw yi ñoo la yuuxoo feesal stade feesal stade yomb na parce que boo amee moyen ñëpp ñëw mais est-ce que c'est la base qui est là la base affective est celle là la base qui vote monsieur président Amadou Ba c'est la base qui vote du Mbumaay mooy vote voté du stade du fees mooy voté Kaolack les leaders qui sont là-bas ñoo la gën a xam na ni ne ci yonent Yàlla Muhammad dafa am la fa nekk dafa am base yu fa nekk dafa am ñu liggéey seen base depuis Mathusalem sonn ci lool ba jaay yi gëm lañu ñu waxal ak ñoom léegi nag nga bañ a seexlu kenn mais waxal ak ñu am mbooloo waxal ñu am base politique mais munoo wax ak ku ku la neex. wala nga ne ñi ñoo am tur wala nga ne ñi ñooy mag te amuñu base politique ils ont été vomis par les Kaolackois vomis par les Kaolackois tous ñoom ñëpp Kaolackois gëmu leen booy wax ak ñoom da ngay sonn rek di nga am mbetteel di nga dem ñu feesal la stade garaawul barke alxuraan awra booy dem Kaolack mu ne la feesal stade ba mu fees dell nga ñëw élection yi nga dégg rang rang rang te ñun ñaanum loolu dañoo ñaan awra ba élection yi Kaolack nga gagné à 100 pour cent man loolu laa bëgg moo tax bay yuuxu di wax. man dama bëgg Amadou Ba gagné Kaolack yi ak Kaolack cent pour cent mais ni ñu demee nii duñ ko gagné noonu Kaolack ana lu fa yëngu waaye bu gerte gi ñëwee nga xam ne yëngu na Kaolack ana lu yëngu Kaolack du yëngu parce que borom Kaolack nekku fa Kaolack du yëngu parce que tey ñu nekkoon ci Kaolack ci coono yi bu fekkee leen ci coono bu gi jotee ñoo fay jiitu bu korite jotee ñoo fay jiitu hôpitaux yi ñoo fa nekk. si bunt kër lañuy toog di waxtaan ak nit ñi boo feebaree ñoo fa nekk kooku la Kaolack waaye soxla te kooku bu ñëw na Kaolack waaye duñ génn Kaolack waaye duñ génn maa nga koy waxaat boo boo demee Kaolack du fees de mais kan moo feesal Kaolack ñan la gisoon nañ fi président Macky Sall ñëw fi bi passé bu mu ñëwee bi passé Californie mën na ma seede mais mais mais mobilisation bu bari la ay euh, euh, waa waa géejewaay laa gis kaw la géejewaay asiko asiko géejewaay ñun lu ñu doy asiko géejewaay kaw la war a voté ñu indi waa asiko géejewaay ay waa moxadal xaw ma moxadal xaw ma lan xadal amee si n'importe quoi amee ñun ñu nax ah ay waa gis naa nu mobiliser Dakar indi kaw la mobilisation bu jógee Dakar indi kaw la ñu benn gel barki yonent yàlla moo xam ne damaa wóor gel bi dama Dakar laa jógee sa mobilisation mi ngi nii président Macky Sall bu ñëw Kaolack lan nga ñuy mobiliser Dakar indi Kaolack kon bu ñu la nax président Amadou Ba man sa liet naa la maa la yee ne bu la kenn nax bu la kenn nax élection proximité moo ko gagné élection porte porte moo ko gagné Amadou dindi sa yére dindi sa costume dindi si casquette yi reetaan na la ñëpp oyofal nga a élection yi barke alxuraan oyofal oo ñëpp autour du table oo les leaders ñu nekk Kaolack ñu nekk Tamba ñu nekk Ziguinchor ñu nekk Thiès région ku fa nekk nga gis ne Amadou ah, vous n'êtes pas n'importe qui waay yow yaa gën a xam ne les renseignements généraux sont là bu ñu la naxu xam ngeen ñu am doole kaw ah, Amadou vous n'êtes pas n'importe qui vous êtes un homme d'État monsieur Ba vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui moi je vous connais moi je vous connais très bien vous vous n'êtes pas n'importe qui vous êtes vous vous êtes un homme d'État un homme d'État warul na nax laajal say renseignements généraux renseignements généraux bu dëggu laa wax de waxuma renseignements généraux yi léegi nii nga xam ne moom moom renseignements généraux yi moom. renseignement xaritoo la renseignement zone yooyu léegi léegi renseignement xaritoo la da gis benn renseignement zone dem benn kër leader politicien xaritam la dekk fa waaw ñu tuuk benn affaire mu bind lu ko neex yow yaa ngi yàqal leader bi mais renseignement généraux bu dëggu am na ñu dëggu de monsieur ba fexe ba xam ñooñu ñu renseigné la kan moo am doole kaw la mais mais nga oo ko wàññiwul la dara oo Diène Farba Sarr wàññiwul la dara monsieur le sama frère maa ngi ñëw Kaolack de. te Kaolack man yow laa gëm nga oo mu Ndiaye Rahma nga oo Pape Demba Bitèye nga oo Mariama Sarr nga oo Ben Saloum oo les femmes leader yëpp oo leen waaye ñëpp ci biir ku ci nekk am ku mën sa borom ah mais bien oo leen nag bul bañ kenn ku ne sa biir ku ci nekk xam nga ko mën sa borom ku ci nekk xam nga ne base bi ku ko yor mais nag teew na yow en tant que leader yow yéen a ñëpp. yéen a ñëpp nga oote waaye nag boo ootee ku si nekk nga jàppale ko ngeen waxtaan ñu mën a génne Kaolack monsieur Ba lii de laa la yéene léegi entourage bi nekkoon ci Macky Sall wax dëgg yàlla yéenewuma la lañ def président Macky Sall yow ñu def la ko. yaa suñu candidat on accepte yow la ñu jàppale et maa ngi oo ñëpp ñu jàppale président Amadou Ba j'appelle tout moom monde j'appelle tous les leaders j'appelle toute la population kaolackoise. toute la population caloboise, tout le mouvement MJKDF2S, le meilleur mouvement, le meilleur le mouvement le plus puissant de Kaolak, je vous dis, je répète, le mouvement le plus puissant de Kaolak s'appelle mouvement MJKDF2S, derrière le les, les, les euh, maanaam mouvement des jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr yooyu ñëpp ci ndigalu Diène Farba Sarr nañu jàppale président Amadou Ba waaye nag wax naa ko waaye pour ñu wàcc ci aussi ah yëg-yëg ku am solo la yow lañu jàppale de président Amadou Ba ba ñu laa jàppale de yow lañu jàppale waaye nag pour élection dafa am lu koy gagné yëg-yëg ñu waxuñ nag nga jox ñu ay milliards parce que ñu ngi sant yàlla yàgg nañ dafa lu nekk ci àdduna te maanaam maanaam réñu Macky sàll jën faro moo ci gën a néew doole te moo ci war ëpp doole réñu Macky Sall jën faro Sall li mu am lu néew la te pourtant toujours mi ngi ko jàppale toujours mi ngi koy mi ngi ko jaarale fu ne gañaloo ko fu ne ak xeex bu ñu ko xeex luñ ko saltel luñ ko humilier lépp teew la mi ngi ne ñàkk Macky Sall rek jàppale ko kon ñun alal taxu ñoo jóg alal taxu ñoo jóg mais yëpp yëpp la ñu bëgg si yow nga yëpp nit ñi nga yëpp population bi nga yëpp franchement les leaders nga wàcc wax ak ñoom même boo mënul wax ak ñoom nga yéen say nit parce que comprendre nañ la comme ñun ñu tuuti ñii rek ñoo nekk kilifa gu di yónnee waxuma la ak yow vous n'êtes pas n'importe qui ah futur président de la république n'est pas n'importe qui te loolu la ñu ñaanal yàlla suñu wax ji yëpp ñaanal la pour nga am ndam la kon wàccal ci terrain bi wala nga yónni ci ay nit ñu wàcc ci terrain bi wax ay ni wax ak say wax ak nit ñi mais nii rek dem Tivaouane baax na seeti suñu sëriñ si c'est important dem Touba baax na. c'est important dem na Baye dem Layeen dem Ndiassane baax na c'est important mais c'est la base qui vote Amadou c'est la base ki vote c'est la jeunesse qui vote ñoo gën a bëri suñu yaay des fois dañu nelaw de coono gi jàpp leen bu dee Kaolack tàngaay bi jàpp leen naaj bi dafa tàng ñu toog duñu voté de mais c'est la jeunesse borom deretu tàng yi ñooy voté te jeunesse bi ku leen ku leen mën a téye ndaw ndaw koy téye Kaolack yi noonu ku romb ñu romb la ndaw la oh, nangam nangam parce que kon ñu war a canaliser ñëwagul kon président Amadou Ba li laa waxoon ne franchement yéene naa la ko yéene naa la ndam yéene naa la nga am ndam te ndam gi ma la yéene bugguma kenn yàq ko te dafa am ñi nga xam ne franchement ay yàqkat lañu war nañ Macky Sall ba yàqal ko wër nañ Macky Sall wër Macky sàll nombo wër Macky Sall nombo ñu bari bari complot Macky Sall teg dil Macky Sall complot ko complot ko ba yàqal ko lu bari bari yi nga xam ne franchement waruloon yàqu te ñoo ñëpp gisaat naa leen ci yow maa leen gis benn par benn xam naa leen maintenant benn bokk yaar bokk yaakaar c'est c'est la demande c'est le sauve qui peut ku ne yaay tëb fi nga neex kenn xamul lan la dañoo war a àndandoo gars yi j'appelle tout le monde j'appelle Benno Bokk Yaakaar j'appelle toute la population sénégalaise ñi nga xam ne bokkuñ fenn j'appelle tout le monde nañu àndandoor gaa yi nañu rafetal xol yi bu ñu iñaan nañu bàyyi soxor nañu bàyyi iñaan suñu influenceurs yi nga xam ne ñoo nekk di sonn di daw suba ngoon guddeeg bëccëg di leen jàppate pourtant mën naam crédit sax duñ ko am di leen jàppate pourtant coono lu ne ñu ngi la ñuy saaga ndey di leen xas ne ñoom ñooy parce que élection politique élection ñaara ko gagné ñi nekk ci réseaux sociaux yi c' important parce que communication la c' est très important añ nekk ci base bi ñaare koy gagné parce que am na koo xam ne mi ngi nekkul ci base bi mi ngi tëdd néegam nit ki kenn rek lay déglu soo da joxum bopp wala kenn wala Californie Sall wala kenn lay déglu bu ko loo rek euh, ci ni ñu waxee mu ne ah waa ah kii de la te sa message bi nga jàllale moo tax kii votal kii kon ñooñu ils sont importants ils sont les influenceurs ils sont importants ñu doole leen bañ leen sànni ñu dem ak seen moyen bopp di sonn di daw loolu c'est loolu ñun nag ñoo koy def nañ leen dooleel xëcc leen xëcc ñëpp ne leen lii ngeen war a def liggéey baa ngi nii tas leen ko ci réseaux sociaux yi parce que sam noonu sam noonu fi muy jaar ba di wax wax lu bon yow yow mënoo jaar fi wax lu bon waaye da nga fexe ba à chaque fois que jëfee nga ngay war a lu baax li nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp bu bu bu ñu feeñee li nga xam ne kii noonu la rek waxul noonu lay wax mooy à chaque fois que nga jël sa leader yaa ngi dégg wane ko jël sa leader di wax ci moom te bañ a tontu wax bu ñaaw moom loolu la ñu ooyee influenceur loolu la ñu de doyee loolu la ñu doyee série de communication loolu la ñu doyee loolu série de communication loolu la ñu koy loolu la ñu mu yokku la mais bu la yokku la amul la njëriñ amul la benn njëriñ donc monsieur le président Amadou Ba ool ñëpp bul seexlu kenn ool ñëpp bul bàyyi kenn buñ na ñëpp yem nga oo leen nga wàcc ci terrain bi oo ñëpp su ko defee ñu mën a dem gagné le 24 incha allah rabbi ñu gunge la ba yóbbu la ba biir palais nga remplacer le meilleur président Sénégal du temps président Macky Sall ñu ñaar ko yàlla mu dem si jàmm fu mu jublu yenn fi yu yàlla jublu yow nga ñëw toog nag continuer lan dem def wala nga def lu ko ëpp quadruplé ko ndax Sénégal mën a jëm ci kanam maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaan yàlla Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm. yàlla mosoon ñu si seytaane mosoon ñu si cat mosoon ci musiba balaa ak xat-xat ak gàllankoor ak jafe-jafe yàlla ñu yàlla mosal ci coow élection yàlla jàll si jàmm ak yàlla bu kenn gaañu yàlla bu kenn xoosu yàlla bu kenn pat yàlla bu kenn làgge ñu ngi ñaan yàlla ñëpp am jàmm ñu dem voté ci jàmm ñu am ndam ci jàmm Sénégal mën a continuer ci jàmm wax dëgg yàlla lii laa waxoon ne naa ko def pour wane ne euh, le président Amadou Ba ñu wax ne na ñëpp surtout maa yaa ngi dem Kaolack Kaolack dafa am réalité franchement euh, euh, te te bul xeet kenn bul seexlu kenn te na nga jël ñu mel les intellectuels teg teg teg ko sa wet et les technocrates ku mel ni Diène Farba ku mel ni Diène da nga koo soxla président Amadou Ba encore une fois je lance un appel ku mel ni Diène Farba da nga koo soxla c'est un intellectuel Sénégal c'est lui c'est un technocrate mën na la xel am na xel mu sell te am na base bu la kenn dugal ci lobby bu la kenn dugal ci lu bon Diène Farba il est loyal Diène Farba il est sérieux Diène a la base et c'est un intellectuel donc ñooñu nga collaborer leen dafa am solo te donc maa ngi lay ñaanal yàlla ndam ñaanal yàlla sutura di ñaanal yàlla président Macky Sall encore fois yal na ko yàlla defal jàmm président Macky yàlla may ko gudd fan yal yàlla may ko wér président man damaa lay sant Sall maa ngi lay wax jërëjëf maa ngi lay njoo ko ñu def Sénégal vous remercie Sénégal ñaanal na la yàlla li nga def Sénégal rëy na. marque nga sa empreinte ci àdduna bi wax dëgg yàlla vous êtes le président sénégalais de tous les temps li nga def ci suuf si def ko ci air bi def ko ci géej gi def ko partout gis nañ sa liggéey kenn du la fàtte man Ousmane la du ma la fàtte defal nga ma teraanga bàyyi naa la yàlla suñu borom te teraanga du tuuti kenn du xeeb teraanga defal nga ma teraanga man du ma doo as du ma defal teraanga ma di ko fàtte as du ma defal as tuut ma di ko fàtte yow laay topp yow laay nawloo maa ngi lay gën a ñaanal yàlla maa lay gën a ñaanal yàlla sutura ñaanal yàlla xéwal ñaanal yàlla mucc foo jublu yàlla fi yiw yàlla jublu président Macky Sall yàlla guddal sa fan mais li wér ak wér la ci daraje Seydina Mohamed Sénégal yal na fi yàlla wàcc jàmm ndogu yi yal na fi yàlla yombal ñuy man la ñuy wax ne bientôt rek ah incha allah rabbi dinañ dugg ci ndogu yi jàppale jaamu yàlla yi te à partir d'aujourd'hui waxoon naa ne depuis keroog commencé na dinañ commencé dimbali ñi ci ceeb dimbali ñi ci diwliñ dimbali ñi li ma ko waxee yow yow mi am alal yow mi yàlla deel doole sutura ni nga amee envie dem di lekk jën bu mag njaane sëdd coof noonu la ko néew doole gi bëggee lekkee kon yow mi ko am ngir yàlla fexel ba ki nga denda lekk ko loolu moo am solo donc yàlla yàlla fa jàmm ci barke Seydina Mohamed peace and love merci beaucoup et bon ramadan ramadan mubarak léegi nag salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi première campagne bu Diomaye fay moo ngi nii non vraiment gars yi da ngeen a yeb Sénégalais yi kii di wax alo allo allo mel ne ku nekk ci Sonatel moom dafa mel ne ku daa mel ne élection yi daa dis ci moom kii maanaam li ngeen ko dugal ci bopp bi nii sax xamu ko barki Serigne Babacar Si ngeen jëndaloon ko ay paanu koko ah, ay madd ay batan seek ay ay ay kii ay légume ne ko demal jaay moo ko gënal kii kaw kaw dëkk la vrai kaw kaw la juma xamul dara ndeysaan dama ko yërëm sax alu alo alo alu alu maanaam moom xamul fu muy taxaw juma yi ci boppam moo xamul kii moom mun tayu réew mi moom barki Serigne Babacar Si kii vrai kaw kaw la laa la wax kii ngeen di tëkk rek Amadou Ba mais di ngeen a yem Sénégalais yi kii Amadou Ba day moromam moo ko gën a présentable ëpp ko xam-xam gën koo jàng ah waaye yow Amadou Ba day moromu kii kii ngeen koy tëkkaleen ki di mel na jaaykatu koko kii maanaam politique la xamul dara li ngeen ko duggoon la xamul gisoo day rappi rappi di tiit moom daa mel ne ku wérul non mais sénégalais yi da ngeen font bu dee kii ngeen yakaar pour mu jël réew mi ne barke Serigne Babacar si kenn du ko jox kii dafa mën kii mu ta doon sax chef de ville garde corps sax xeeb nañ ko pour mu doon ko waaye da ngeen a yabaate waay seetaan leen kii sénégalais yi kii Amadou Ba day morom da ngeen a yabaate waay am na benn vidéo nag bu Ousmane Sonko doon doon xasee Amadou Ba ci fonctionnaire public dinaa leen wax dinaa leen dina dinaa leen indil vidéo bi Ousmane njëkkoon a wax ak li mu waxaat yéen toog leen di connecté rek wasalaam